wal na yàlla gërëm leen ñoom ñëpp léegi ñi mu jamonoon teeloon tudd naa la Thierno Souleymane Baal mhm. Souleymane Baal dafa nekkoon révolutionnaire bañoon li am Fuuta ñu sonal ko ci Denyanko bi ba exilé ko mu dabu si dégg ni maam xaalis ñëw na piir mu dabu si ko bi mu ñëwee jànge ci moom àggale njàngam waaye nag muy bind leetar fu mu dégg benn waaye bu Denyanko bay sonal génne ko rek mhm. mu bind ko leetar ni ko ñëwal Pire parce que boobu Pire am na garantie cousin wu dammel la dammel bi am naa ak moom pactub li nga moom muy sa territoire duma ko laal mhm. duma leen laaj impôt dañ daan watu sax ay ay ay ay watin yoo xam ni ku fa dëkk gone goo xam da nga daan watu watin woo xam ni boo génnee ñu xam ni kii ci tund wala dëkk mhm. dañ lay xam mhm. ne léegi nag euh, ñooñu la jamonoonteel Abdul Qadir Kan Malick si Bundu bàyyi Cheikh Omar Foutiyou maam Saïdou Tall ñooñu la jamonoonteel waaye nekkuñu woon ay sëriñ yu am ay foyer seen foyer bopp mu yor foyer déedéet moo nekkoon kay seen kilifa. Mhm. yar leen samp leen. loolu mooy li amoon ci digganteem ak mhm. ak ak sëriñ si. kon am na solo trop. Mhm. ci loolu nga xam ne kilifa la monument la. bu ñu xoolee alaqatuhu bil mustaamirin al faransiyin parce que itam jamono jooju est-ce que tubaab yi fekkoon ñu dugg Sénégal. wala dugg ñu fi woon ceddo yee fi nekkoon. wala su fekkee tubaab yi fekkoon na ñu dugg Sénégal. ban relation la amoon ak ñoom parce que. waa xam nga colonisa colonisation moom. Hmm. li date yi ñu wax moo ko jiitu. bi ñuy ñëw Sénégal fekk na Sénégal jàng nañu diine. Mhm. fekk na civilisé nañu. waaye fule civilisation boobu tax na ñu tuddee ñu indigène mooy koo xam ne ak tën nga amoo benn yar. Mhm. kenn yaru la. Mhm. jël zone yi nga xam ni fa la ñu implanté wu muy quatre communes yi nekk fa zone yi nga xam ni ñii ma lay tuddal seen histoire muy Fuuta muy bund muy muy muy muy Kokki Matandumbe Diop. muy Mbaakol Gële muy foo mën a dégg zone yooyu ña fa dëkke woon. ñoom ñu ngi leen tuddee woon indigène mhm. indigène mhm. moo xaw a niroog baatu ummi mhm. koo xam ni kenn yaru la kenn jàngalu la kenn kenn deful boo doon boo buy daal buy bu tojagul la comme ni di waxee buy bu tojagul fekkoon nañu jàng fekkoon nañu am xam fekkoon nañu bind histoire senegal maanaam lii ma lay wax nii ci taarix boo xoolee 1924 Cheikh Moussa Camara bind na lu bari ci taarixu Fuuta sëriñ si ñoom kenn daawu leen bindal ñooy bindal seen bindal seen bopp ndax ñoom amoon nañu langue de mmh. communication mmh. Mmh. dañ daan bind seen i lettre ak seen i yëf seen i yëf yoo xam ne ñoo daan bindal seen bopp moo tax boo delloo ci kii di nga gis lu yaatu ci ci ci histoire boobu waaye tubaab bi bi muy ñëw fekk na fi loolu waaye dafa am jafe-jafe ci not ñi nga xam ne nii jaar nañu jaa daaray piir parce que daaray piir dafa dajale woon ñaar dafa doon jàngale l'islam waaye da jàngale tamit loo xam ni deretu xaali la woon mhm. mooy nee naa la kii doomu buur la ci ñaari côté yëpp mhm. waaye nee naa la tam boroom xam-xam bu mag la woon façon sëriñ bu mel noonu nag tubaab bëgg ko mhm. tubaab sëriñ bi mu bëgg mooy sëriñ bu bëggul dara ci lim yor xamu ci dara jéemu ci dara mu bàyyi laa ak li nga yor nga bàyyi ko ak lim yor waaye sëriñ boo xam ne am na xalaat ci liy doxal société bi am na xalaat ci citoyenneté am na xalaat ci nangam am na xalaat ci nangam. ah non sëriñ boobu du juboo ak ak ak. même ñaare ku ñu yar sax. waaw nit kuy wax ci yooyu doo leen. intéressé doo leen intéressé loolu moo tax. ñu ne moom ci daara ji la war a yem. <laughs> loolu moo tax ñu génn Pire. Mhm. amoon benn particularité moo tax docteur Rawane Mbaye wax. ci benn mhm. ci terme boo xam ne dama koy reprendre. Mhm. ci conférence ci sëriñ Pire mu ni école de la haute magistrature la woon. maanaam école la woon boo xam ni fi ñuy former administrateurs yi gën a mag yi samp ay nguur defar ay état. lu mel noonu lañ dafaa amoon biir Pire ñu daan leen formé moo waral ñëpp a mhm. génne mhm. samp ay nguur samp ay état toj ay dëkk def ay ay yëf yu rëy rëy mhm, waaye liggéey boobu ñu def dafa jur colonialiste bi ñu dikkee ñu am position ci daaray Pire ñu jàngat ko bind benn rapport yóbbu ko ci gouverneur général xamal ko ni ko piir daal li ñu gis en résumé mooy source de rébellion indigène maanaam mbañ gi ñu la bañal yow tubaab bi ci gox yi nga xam ne nooyaguñu la koy alimenté la la leen la la fa mbañ ngay jóge fa muy bàyyeekoo mooy ña leen cay puus. Hmm. boo ko toppee ñoom ñëpp piir lañ jànge hmm. Hmm. ndax maa Maba Jaxu Ba dafa jànge Pire. ñoom Souleymane Baal gis nga ñoom boo ko xamee seen histoire ak révolution dafa jànge Pire. ñi bañal tubaab bi yëpp ba ci ahlu mbakke ndax seen maam maam maaram jóge piir ñooñu ñëpp boo ko xoolee dañoo bañal tubaab bi. nangu luñ ko te Pire la ñu jóge te Pire la ñu jóge comme nag am nañu relation ak Pire. ñi jànge fa wala seen i maam jànge fa wala seeni baay ba noppi bañal tubaab bi kon li muy tekki mooy euh, fi ñuy defaree bañ gi maanaam pire mooy xaayida bi mooy xaayida bi <laughs> mooy xaayida bi fa ñuy defare <laughs> bañ gi waaw nañu ko toj mm-hmm. ñu daal di lakk daara ji loolu ñu ngi ko def en 1865 mm-hmm. Pinet-Laprade jiite woon liggéey boobu ci commandement am kan moo def kii ba nag ñeneen yeneen i tur tudd na leen mais moo ko jiite woon ci commandement am ci li wér ci li histoire yooyu yu bari wax mm-hmm. bi loolu amee ñu lakk daara ji fekk bi biñ koy lakk sëriñ pir bi nekkoon sëriñ pir ci jamono jooju. Mhm. parce que dañ daan def sëriñ pir bu fi jógee tund wi tund xaale Amar Fall muy lu war a toll ci soixante nangam village mhm. daje tànn ki nga xam ni moom la ñu jàpp ni mooy sëriñ pir ci xam-xamam ci jikkoom mhm. ci doxalinam ci yëppam ñu tànn ko mooy administré tund wa waaye itam mooy kilifa ak daara ja kilifa ak jumaa yi bu paree nag mën naa not euh, euh, jël nag koo xam ni moo gën a féete ci wàllu njàng mi def ko mu yore daara ji mhm. ki gën a féete ci wàllu ku nekk mu am cër yi mu koy séddale mais moom mooy doon chef suprême bi nekk mhm. Serigne Touré mhm. loolu ki ko doonoon ci jamono jooju mooy maam Boubacar Pendeyeri maam Boubacar Pendeyeri jamononte na ak Cheikh Ahmad Bamba amanteeg moom diggante bu rafet ak njabootam sax Cheikh Ahmad Bamba yar leen jox Cheikh Bamba ku ñuy wax soxna xari Penda maam Boubacar Pendeyeri Cheikhul Hadj Malick bi mu ñëwee Tiwaawan moo ko dal jox ko tool jox ko kër jox koy barab kooku moo nekkoon dernière sëriñ pir bi daje ak daara ji nekku mm-hmm. daara ji mm-hmm. waaye biñ ko lakkee bi tubaab bi la ko fekk mu dem ñooro parce que ñoom piir dañoo amoon habitude fu ñuy xeexalee lislaam que féete wàllu lislaam dañ lay dañuy farag yow ban ñooro ñooro ñooro ñooro ci Maba Jaxu Ba ñooro dirib waaw d'accord dafa fekk am na lu ñuy wax jamiyatul ulama ci mm-hmm. jàng histoire senegal Sénégal moom la maam maam maam moom Mor Anta Sali demoon mag ñu bari dem ca ci maba woote ngir ne dañuy def koote dajale ndax gis nañu nag jullit ñi moom ñi ngi leen di bëgg a jeexal mhm. ñi ngi leen di bëgg a gaañ te ñu dara lu dul nekk ci seen diine mhm. wa ma naqamu minhum waaw illaa an yuminu billahi al aziz al hamid lu mel mhm. noonu woote boobu ci la maam Boubacar Pendéer yi dem ñu ginnaawu ko def ay tuuma talfiq def comme comme colonialiste yi niñ daan def fexe ba ni daal pir moom euh, bokk nañ ci bataay bi ñu gën a gañe tubaab yi gaa bokk nañ ci ñi ngi ñi ngi ñi ngi ànd ak ceddoy léegi di ñu sot dañoo jël sax ay armes denc nañ ko ci sàq yi ñu ñëw lakk lakk daara ji mhm. tasaare ndongo ya lakk jumaa ja loolu en 1865 mhm. bi loolu amee maam Boubacar Pendéeri dellu si ñu wax ko ni ko sa kër kat ginnaawu nañ la fa mu jóge ñëwar a dellu si piir bi mu ñëw fekk na tubaab bi lakk nañ daara ja ba dem mhm. mu samp bant bi nga xam ni fa lañ daan samp eh, takk njoowaan gi nga xam ni ki daan nekk sëriñ piir fa la daan toog di jàngale cour magistrale yi mhm. mu jël bant boobu dagg ko gas la desoon ca téere yi daal di jël bant bi daal di koy samp daal ni ñi nga xam ni ñoo ko war a dekkal bu ñëwee danañ ko dekkal muy xamtu daal dem sanc mhm. dëkk bu ñu wax sanc Pir mhm. loolu mooy li mujj ci histoire lii ma lay wax nii jiitu na dikku Cheikhul Hadj Malick ca tund wa parce que moom lii 1865 Cheikhul Hadj Malick ñi gën a wax la ko sori début 1900 la dikk ca ca tund wa vraiment Euh, taarix taarix taarix euh, taarix am na solo léegi nag liggéey boobu yëpp mu liggéey. Hmm. moom Cheikh euh, Qadi Amar Fall radiyallahu anhu hmm. ndax xam nga liggéeyal na alquran. Hmm. liggéeyal na yàlla liggéeyal na yonent bi. ndax defe naa ne daara jooju tey tubaab yi lakkoon. ñu ngi ko doon lakk ngir daara yi fay. dafa mel ni daara yi dafa gën a tàkk. comme ni la ko Cheikh Muntaxa waxee radiyallahu anhu daara ji lañ bëgg a dekkil. mu ne leen romb leen ay nit ñuy jàng alxuraan nga ngeen ne ko ah kay mu ne daara ji fayul mhm. effectivement daara ji fayul mhm. te defe naa day gën di tàkk rek ba ila yawmi diin mhm. euh, yuriduuna lu yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim defe naa ne yàlla taal taalam nga di ko ëf ngalawul gémmiñ tuuti na ci fay taawlu yàlla day gën a jolli ba ila yawmi léegi daara jooju defe naa am na benn mu assasa boo xam ne sos ngeen ko boo xam ne ñu ngi ko tuddee fondation bu Xaadi Omar ci jamono ji ñu toll jamono wuti na seen jamono ñoom ak jamono yu wuti jamono ji ñu toll xëy na seen jamono la gënoon a jafe. ndax ñoom xam nga yow doo taal doo defar daar yu ñëw taal ko. fi ne daara yi ñëpp libre nañ. ku neex sos daara. mbedd mi sax bu la neexee léegi sos fi. waa quartier bi génnee seen i doom jox la ngay jàngale al alquran. kon léegi nit ñi libre nañ ci. jàngale alquran mais mu assasa bi nga xam ne benn fondation la. fondation boobu ngeen sos. tuddee ko moom. naka la demee ak lan mooy bit bi. Mhm. ci sosal ko hmm. euh, li ko tax a jóg. Hmm. ñi ngi ñaanal suñu bàyyi suñuy kilifa yi nga xam ni ñoo newoon ci fondation boobu di ca yëngu. Hmm. bëgguma cee tudd tur ndax bañ a waaye ay mag ñu baax ñoo newoon ci association de famille di ko doxal. sàmm rek ndono li ak di fàttaliku cosaan loola. nun bi ñu ñëwee di ay jàngalekat di ay ndaw toll ci def dara ñu ànd. ci njiital ku ñuy wax Mamour Fall di expert comptable. Uh-huh. yàlla dogal ñun man ak sama mbokk mu ñuy wax Maodo Fall.